إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين نبي سمت الله سبحانه وتعالى بجلة يرسل عليه الصلاة والسلام خلا بلة يجد تعمل الله يجدكم ولا فدل لسلم باكم رحم جزاه الله خير dama jàpp ne bu fekkee dañoo jóge ci ay barab yu wuute bàyyi ay yitte yu bari di ñëw ci xalaqaat yu mel nii du woon jar sax du woon jar sax ñu ñuy fàttali ci suñu xeeti jumtukaay yi jawaalaat yi di ko tëj waaye dama jàpp ne nit ku ne ca la ko yitteel bu ca nekkee dana lépp lu koy gàllankoor war na ko mën a bàyyi te nekk ci biir jàkka bi da di benn sabab nekk ci biir bantum la di ñaareelu sabab xam ngeen ne arimatu salaf yaakaar naa ne ñoom bu ñu fekkee woon seen jamono ñoom ñu ngi mën a jàng ci moom ci ñoom ndax defe naa bu ngeen déggee ku mel ne imam ibnu abdul bar ak ñeneen ñi mel ni ñoom am na ci ñoo xam ne nga jàng si dañoo dem bu tudd si mbir yi lii lii ki nga def ko ñu dàq la nga nii parce que dañoo jàpp ne amoo seen gim ci xam-xam xam nga loolu sax doon wax dëgg yàlla mu baax la nga def ndax ñu mën na koy ci fekk yëgu ko sax waaye nii rek nga ci gis lii rek ñu dàq la génn am na ci ñoo xam ne dañoo jàpp ne kaalaw dafa jaabu si ñu jàng mu def ko boo kaalu ci la jugal génnal te xëy na ngay vidéo yàgg xalima ji jeex te fukki xel xalaatu di ko taal ci mbooloo lépp xalima nga xam ne loolu ci njàng mi la bokk xalaatu si fukki xel di ko def ci xal moom kay dañ koy def dañ daale ba tax kenn ci ñoom day nit li mu ne man samay xalima laay taay rek fekk fee da ngay ku xalima jeex rek mu xalaatoon ñu ne li ma ko jaayee lu seer seer dana ko jënd xalaatuñu taay ko kon dama ko wax gis ni yooyu tey jii ay mbir la yoo xamante ni buñ ci sàmmoon ci rek wallahi am nañ yaakaar bu baax suñu borom mu defal ñu baraka ci li ñuy jàng kon portable yi buñ ko mënee def ba ca kër joom mooy lépp su mënta ñàkk ba mën a jël sax di yàlla fekk ba bind yi jeex kooku mooy benn bi ñaareel bi amar nga damay dañoo ci jël ñu gas biir ñoom dañ leen tàmbali tafsir bi waaye bi ñu xoolaatee gisaat ni muqaddima yi ñu doon def xam naa ñett la moo jot a jàll ñeenteel ko ba dars biir ñu ni doo ko tàmbali xam naa dara du ko gën a am solo ci suñu foog foog ndax li mu doon wax lépp ñoo ngi doon wax ci alquran ak ni saxaaba yi def ba dajale ko ak lan mooy alquran comme ni ngeen ko xamee ci bind bu njëkk la alquran dëgg dëgg dëgg mooy lan ak sarambàcc yi ñu ca def ñaareel bi juhudul asxaab fi jamci wa tartibi kitab arrahman effort ak coono yi nga xam ne saxaaba yi daj nañ ko ba dajale alquran ci ñaari dajale yi dajale Abubakar dajale gi amoon jamono sa salam bind bi paase gis ngeen dajale gi amoon jamono Usmaan ibn Affaan kon damaa jàpp ni dina demee ma nafaraat dama gis ni wax ci tafsir benn muqaddima boo xam ne ci tafsir lañ koy def defe naa loolu dara di ko gën a am solo ñu doog a dugg ci bind bi xam naa ñàkk ko ñàkk am suñu tafsir bi tàmbali waaye muqaddima yii nii rek ba ñu ngeen xam am solo si dañuy dugg ci tafsir bi parce que dafa am ay jumtukaay yoo xam ne dama koy jëfandikoo yooya laa bëggoon ràcc ràccal ko ba nit ñi xam ko ba sóotal ci faram fàcce boo ko ci amul di nga xam ne lii ñu fi moom mooy nangam kon tafsir ci boppam def ci ak bind loolu lu am solo la ndax bind boobu moom lañ fas yéene def defe naa dégg ñu toog bi jàng la Quran kese waaye dañoo bëgg def tafsir yi Quran al azim tafsir ci boppam mooy lan ak ndax wareef naa tafsir alquran wala déet ma gis ni ñaari laaj la yoo xamante ni tàggalee ci nit ñu am solo tafsir mooy lan xam ngeen ni borom bi subhanahu wa taala dafa wàcce alquran waaye bu ñu ko wàccee mu nekk dustuur li xayaati jamii al muslimin wal muminin mu nekk benn constitution boo xam ne lépp lu ko gëm yàlla bi di soxla ci kaw suuf ci ci àddina ci àllaaxira borom bi danga leen la ci biir téere bi bu fekkee ni jullit ñi melal nañ nañ war a mel duñ jëggal déet duñ jëggal ak xam-xam bu mu mel noonu xataa loolu xam-xamu médecine sax alquran saxal nañ ay ishaaraat yoo xam ne bu ko borom xam-xam yi faram fàccee xam-xam boobu génn ci loolu la ñuy gis suñu borom def na faram fàccee ci bàyyi shay kii boobu bëri bëri bëriwul dara ndax li ñuy ñëw programme àddina bu àllaaxira ko taxaw ci maanaam alxuraan ñëwul rek pour defar programme àllaaxira rek jëm déedéet ndax àddina bi laajte lu ñu rek nga xaar xaar baaral rek doo ci am benn cër julli zikr jàng alxuraan sa biir àddina bàyyi ko ñeneen ñi dina ko defal déedéet waaye yonent yàlla bi alayhi salaatu wasalaam ku xool ak dundal daf doon boole diggante defarub àddina ak defarub àllaaxira te loolu mun la ak suñu war bu demee ba proba di xeex wala sa xalqa ba di jàng wala ci guddi gi di julli da ngay jàpp ne kii moom comme ab malaak waaye bu dikkoon ci jumtukaayu àddina yi nga xam ne mën naa jagal sama julli ba ma gën a jekk ni ma jaamoo sama borom da ngay jàpp ne lii doo la jàng comme ne li suñu borom ya'lamu ma zaahira min al-hayaati dunya xëy na leneen yu wuti rek ñooñu mooy mu ne aaxiratum gaafiluun ñu am lu foofu ñoom lan ñu war a xam seen mbiri àddina lañ koy xam waaye seen mbiri àllaax lañ koy topp su ko defee alquran ci boppam borom bi wàcce ko mu nekk ab téere dafa waxoon naa ne suñu borom wàcce na téeméeri téere ñeent ci li gën a wér ci wax borom xam-xam yi ñeent yooyu moo ci gën a siiw muy alquran tawraat ak zabuur ak injil téere bi ci mujj mooy alquranul karim alquran dafa dikk pour nasaxal pour faram-fàcce pour firi pour mokk ci mboolem téere yi nga xam ne dina ko jiitu woon lañ ëmboon moo tax ko am alquran am la yete def yonent bi alayhi salaatu wasalaam yàlla wàcce ko ci moom muy làkk arab yu set wi ci gën a set la ñu doon làkk arab fuuf ndax ndaw la mag la mu yàlla yónni te mag mu yàlla yónni faw mu jox koy bagaas saxaaba yi nga xamante ni ñoo doon làkk arab ci sariqa boo xam ne ñu set wicc la waxuma la alquran waaye yonent bi sax nga doon làkk ay baat sax ñoom duñ xam li ci wax ñu doon al an xamiyar wa qiis la yanfatix la la la la la yanfatixu fiihi an zaan ak yeneen baat yoo xam ne dafa xóot la yonent bi dafa wax saxaaba yi ko waaw lii mooy lan atadruna ma nangam saxaaba yi ko allah wa rasuluhu aalam léeg-léeg ñàkk xam dana ko waral léeg-léeg yaru ak bëgg mu faram fàcce dana ko waral yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci alquran ak ay waxam am na ci yu bari yoo xam ne saxaaba yi ko laaj lii lu ñu tekki yonent bi dinañ ko tekki kon alquran ci boppam tekki ko dañu xam ne kii kat aaya jii lii lay wax ak lii lay ko tax a jóg loolu mooy tax ci gën a gàttal ci làkk wolof bu dee borom xam-xam yi nga xamante ni ñoom dañuy posé ci wax dina wax na ci ay wax yu bare bari damay cheikh al islam ibn taymiya nga benn muqaddima bu am lu am solo bu la ci usulu tafsir day benn mu jënd la ci biir mu jënd la ci biir fatawa kooku waxuma la dellu te daa am solo waaye dama wax ne kooku képp ku di jàngale kat waroo ci digg ndax am solo boo xam ne am na solo boo ci delloo leeral na ci lu bare bare ci lan mooy tafsir ndax am solo dañ ko firi wala déet moom defe naa ne kooku laaj la boo xam ne ci jël woon a laaj moom ndax béykat ma war nañ ko wax ci wolof defe naa man moom lay xaw a yemale ñaari masala yooyu ndax damaa jàpp ni bu fekkee ne jullit ñi dañoo tasaaroo formation amul séminaire amul conférence amul tour amul comme ni ngeen ko xamee yi ñuy jëfandikoo ñun lenn rek mooy li am mooy àjjuma ba àjjuma mboolem lu ñu war a régler ci mbirum lislaam ni àjjuma dinañ ko war a régler ci jàkk ñu tamit nit ñi di amee benn discours boo xamante ni ñu ngi mel ni benn waa bu doon laaj ay chinois ci seen kanam daal di dem kenn du xam ci lim bi wax ku nekk naan sa morom maa daqaara alifan damaa jàpp ne buñ bëyoon nit ñi seen xel yi rek bañ a jëfandikoo sa xam-xam ci bunt bi yoon ñu jëfandikoo xel rek danañ leen doon xóot moom li gën a dëgër mooy warees na ko wax te làkk lu nit ñi dégg borom xam-xam yi suñu borom xam-xam yi jazaahumullaahu kulla xayr ñi nga xamante dañuy dellu ci ñoom ñëpp lëndal lañuy mbooleem làkk bu muy làkk warees na caa mën a tekki kon ndax xam-xam warees na koo tekki moom masala moom ñooyam la chaque dañ koy tekki ngir ñu xam lan la borom bi subhaanahu wa taala nam na ci aaya bii ngir ñu war koo jëfee ndax kitaabun uxkimat aayaatuhu summa fussilat min ladunil hakiimin aliim kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun wa liyadabbaruu aayaatihi ngir mën ko seet ñu seetantal ko nit ki bu xamul li ñu jàng lu mu doon du ko mën a seet du ko mën a seetantal beneen bi ci des mooy afalaa yatadabbaruuna al-qur'aan am alaa quluubin aqfaaluha ndax dañ jël seetantal alxuraan wala seen xol yi dañ koo kànnaare ba nit mënu ca dugg nit ki mën ko seetantal ba jëriñ li ñu daa xam li ñuy seet lu ñu door afalam yadabbaru l-qawla am jaa'ahum maa lam ya'ti aabaa'uhum al-awwaliin aay yu bari yoo xam dafay tegtale lu mel dañoo war a seetlu téere nit nafar ko di tarle loo xam li nga xamante ne suñu borom nam subhaanahu wa taala yii moo tax borom xam-xam yi def ko leen alquran dañ ko war a tekki waaye nag ñu koy tekkee alquran dafa am ñaari façon tekki benn bi mooy tekki alquran ci alquran beneen bi ci def mooy tekki alquran ci sunna yonent bi alayhi xam ngeen ni alquran ci boppam day firi alquran ci bunt bi gis naa ci benn imam boo xam ni tafsir na ci ak tafsir boo xam tafsir du mel ni moom ci fànn gi muy al imam al allaama Muhammad al Amin al Shanqiti ci téeréem bu am solo tuddee ko Adwaaul Bayaan fi Iidaah al Qur'aan bil Qur'aan téere boobu doonte am na ay yeneen mu ñuy def yu bëri yoo xam ne dafa kéemtaane waaye bii moom dañ a rawat parce que nit mën naa def dara am ñeneen ñu la dara waaye bii moom ñi ko sore dañoo bëri fekk am na mooy day tekki aaya bi mu la wax daanaka am na aaya bi mu ñëw di commencé ci alquran kon alquran day tekki alquran dina ci ne ci gën a yaatal ci téere boobu am na tekki alquran ci sunna leen sax xam ngeen ne yonent bi moom la yàlla wàcce ci moom alquran bi ñu ko wàccee ci moom moom xam xam na lan la suñu borom nangu ci aaya bi mu koy tekki saxaaba yi moo tax saxaaba yi ci biir doon tekki alquran ci seen ginnaaw tax boobu ci biir ci gën a ñëw kon alquran dañ ko war a tekki waaye buñ koy tekki dañ koy tekkee ni ko suñu borom nammee ci téere bi wa illa ni ko yonent bi jàngalee alayhi salaatu wasalaam wa illa ak tafsir bi maxsuur mooy tekki ko comme na nga xam ne lañ soxal jëlee ko ci saxaaba yi foofu ma leeralal benn thème ma sa jàll ndax dinaa gis ñu bari bari di ci amul jaaxle di la gis ab tafsir bu ñuy wax ni bi dañ koy respecté Abdullah ibn Abbas nag lii lépp moo ko wax déedéet Abdullah ibn Abbas benn téere boo xamante ni bind nañ ko ci jamono wala bu ko tegee xëy na yooyu istidraat la ci gannaaw ak gannaaw sax boo ko xoolee ba ci biir ñu ci bari dafa juñu waxi Abdullah ibn Abbas beneen bi ci des mooy alquran ci boppam yonent bi alayhi salaatu wa salaam daf ko doon tekkil saxaaba yi ñuy xam lu muy tekki léeg-léeg alquran bi mooy tekki alquran inna anzalnaahu fi laylatin mubarakatin inna kunna munzilin danaan ban guddi la ñu ne inna anzalnaahu fi laylatil qadri mu jeex ñu xam ne lii kon moo tekki lee boobu aay yëpp bàyyi na mboolem aay yi nga xam ne aay tekki na يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم والا الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم ينزل التكل لكم خلال من الذكر الوادي بحث لم يخن لقمان يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم ففسر الظلم بالشرك او فسر الشرك بالظلم كان يوخن في ويغن ها وعلى مثلا لو تتكلم لنقص من ذكر واحد آية لنقص من ذكر alladina amanu kay gëm yàlla wala yalbisu imaanahum bi zulmin te ak toog jaxasoo ci seen ngëm-ngëm ñooñu ëllëg yàlla daf leen defal ay am na muy sécurité tawfiq ak texe aw ba ni tey rek la ñuy jéem a aay jiw mu yokk suñu nit ñi yëpp ndax amul kenn ku dul toog yéen tamit yéen da ngeen a amul dégg-dégg xanaa dégg leen jaamu bi yàlla ba la mu waxoon doom ja laa tushrik billah bu bokkaale yàlla li la shirk la doon mën a xam bokkaale tool bu mag la bokkaale tool bu mag la yooyu bi sax na tekki léegi leen kon tool bi ñu tekkee mooy tool bi ñu tekkaay tekki wu ñu maanaam leneen la koy déggee kon loolu bu koy toppee nga gis ni kon yéen yàlla dana tekki saxaaba yi radiyallaahu alayhim alquran ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam amul benn aaya bu doon wàcc kon ni ma la ko waxee woon ci bind alquran bi lu dul yonent bi day wax ne jël leen ko baar sàngam wala wala tëfi diggante aaya sàngam ak sàngam wala def leen ko def gannaaw aaya di wax inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan comme ni ñu koy waxee am naa bu muy tafsir nag aaya bu wàccee yonent bi da koy jàngale yaakaar naa dégg Abdullah ibn Umar Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Abbas saxaaba yooyu yu mag yi ak yu ndaw yi dañ ma wax ne ñoom li ñu doon jàngee ci jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam bokkul ak ñun ni ñuy jàngee ndax ñoom li ñu koy jàngee mooy dañuy jàngee fukki aaya yem ca waaye dañuy xam la muy tekki xam ngeen ne mënuñu ko tekkil seen bopp moo tax musiba bu rëy la nit ki di jéem a tekkil boppam alquran wala boog nga jéem téere bi rek gis baati arab yi bëgg koo tekki déedéet arab arab la waaye buñ fàtte ne arab yi kat nit ci yàlla arab yi dañ wàcc ñoom ñu naan lii la masala bu am solo la arab yi kat nit ci yi nga xam ne ñoom moom la ñu nàmp moom la ñu xam mën a taxaw ci wéy ci téeméeri béy yoo xam ne ci li nga taxaw xalaat ko dégg arab yi kat nit ci te leer nañ alquran day wax ñu naan lii lum ci nam yéen ñi wax ab baat ñu ne ko yéen bi lii mooy lan kon da ngay jàpp ni ab ajam bu ne nii nga xam ne da ngay góorgóorlu rek ci laaj nit jàpp na li yaa gën a yëy ci laaj lépp mooy lan boo wax lii mooy da nga def lépp moom lu muy tekki nga xamoo ci dara lu am solo la. beneen bi ci des mooy yéen bi alayhi salaatu wa salaam ci boppam ñun dañ tekki ne saxaaba yi alquran ci jamono bokkut ak ginnaaw bi ndax tekki gi nekk noonu comme ni ngeen ko xamee ci ginnaaw am ay téere am ay kaamil ñuy taalif ak bind moo wax nangam déedéet yéen ñooñu amoon ay ndongo yoo xamante ni ay làncinoor xam-xam lañ woon dañ koo daroon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wat li nga xamante ni moom mooy li xeelee ci rëbinam bu sell bi sallallahu alayhi wa sallam ñooñu mën naa dëgg ala sabili misal al xulafaa al arbaa donc Ali moo ci ëpp sens Abu Bakr wa Umar Usman ak Ali gis nga ñeent ñii ñoom ñooy ñi gën a fës ci ñi nga xamante ni ñoo doon teg ci alquran ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam Abubakar nag xam naa nit ñi danañ xaw a jaaxal ndax boo ko mën a teg alquran waaye xarit bu Abubakar dara sax defe naa gis defe naa xam ngeen loolu julul ñi xóotal ñi nga xam ne dañ ci maajim yooyu masaa léegi bu dul loolu comme ni ab xarit bi la bi Abubakar farlu jafe am donte nag am na booy lee di musnad imam Ahmad ibn Hanbal nga xam ne musnad daf ko tënk ci saxaaba bu nekk li mu soloo dafa def musnadu Abi Bakr as-Siddiq andi xadis yi Abubakar solo amul bii ci ak la wax amul bii ci amra la wax amul bii ci sëy la wax béy ci néew la wax dégg lépp rek tegal a jëm musnadu Umar musnadu Usman musnadu Ali musnadu Ibn Mas'ud ila axiri mu jeex kon su fekkee loolu ñëw na ko ci Alxuraan moom liñ daal di aw la bi lañ gisee moom mooy Ali ibn Abi Talib nag lan moo tax mu gën caa fës mooy bu leen fàtte ni Abu Bakr Siddiq li muy ñëw ñëw ay riwaayaat ak li muy ci ni dafa teel a jël xilaafa bi yeneen bi ñu faatoo kon am na lu ko may yooyu toog di jàngale waaw mais it def koo teel a dëkk Abu Bakr yàgg kon jotam kadalik Usman ibn Affan moom bëriwul woon lu jël toog di faral di ci bi léeg-léeg sa daram lii de suñu wóor li nga dégg di seen ci xaritam jàpp ba soo jullee ñaari rakka di waxtaanee sa mbiri ak ñi dañuy sa xel yàlla dañuy jéggal say bàkkaar mu ne suñu woon ak aaya yi wax ci alquran yi lépp xam-xam dafa xaram kon lii sax du ma koy ci kon kooku sawar ngeen toog di wax. Ali moom li ko may sax moom mooy dafa teel dafa yéex a jël ci laa xam kon amoon na jot ñaareel bi tey mooy dafa yéex a faatu te jamono yi ñu faatu fekk na nit ñi soxla nañ koy sax ci alquran parce que fekk na islam wasaaroo na ay mbir dugg nañ ci biir ay dëkkanteeg dugg ci biir nit ñi dem nañ ba commencé laaj nañu arab yi commencé di yàqu nit ñi wax yu ci bokk kon ay mbir tax na Ali gën a gën ci tafsir alquran donc nag moom yu bari ko koy askan ne waaye loolu biir xam ko nag yoo am solo ci bëgg bi kon ñeent ñooñu bokkoon nañ ci di gën a fës bokkoon ci ñi nga xamante ni gën a mënoo fës ci tafsir alquran jamono Abdullah ibn Abbas moom baraka nag moom moom mooy alqinda moom nga xam ngeen Abdullah ibn Abbas ñoom suñu faatu ñaataat laa moom ñu ngi si ko ñett ñeent ñu ngi si ko juróom ala kulli xaal faatu ñu si juróom xoolul bële boo xam ne baal na fukki at ak juróom yaa xam sab xam-xam boobu ci yéen si nga ko jaajëf kon Abdoulaye Ibn Abbas fekkee na jamono ci dégg na ci moom waaye bëri li ëpp ci xam-xam bi ñu la baaroo ñu ngi ko jàngee ci saxaaba yi radiyallaahu anhum ajmaïn waaye yéen ci yàlla bi kat da koo ñaana lool yéen sa salam bari na saxaaba yi mu kontaan ci ñoom ñaanal leen bokk na ci kaab ma nga xamante ni moo ko kaab ma nga xam ne ko defaral na sa xalaga mu jub ñaanal ko ajjana ja bokk na ci Abdoulaye Ibn Abbas yoon ci biir kontaan na ci moom jël loxoom teg ko ci dëndam wala boppam daal di koy ñaanal yàlla yàlla dégg nañ ko diine te may ko mën a tafsir alquran moo tax moom bu ñuy wax ci masalan aaya xilaaf am ci wàllu tafsir moom ah bu ñu nee waxi Abdullah ibn Abbas rek daanaka mbir moom daal dinay jeex moom faranku laaj kon ak dégg-dégg ak yaatal ak firi firi ci alquranul karim yàlla may na ko Abdullah ibn Abbas lool ba mën naa ni bañ a dugg la tax dafa mën nañ cee leeral ay mbir yoo xamante ni ay malakaat la ñu koy yàlla may ci buntu bi kon bokk na ci ñi gën a fës bokk na ci ñi gën a fës ku may yëngu kaa ku may nag yëngu ci tafsir bi waaye ku may xam ngeen ne alquran karim nga xam ngeen Umar ibn Xattaab yéen a ngi dégg keroog bi nga xamante ni jëkk na ci jàkka yi gis ma xam day bind fële na day bind fële kii di jàng kii di jàng doo xam kii di jàng ndax kee la muy wax Umar ibn Xattaab daf leen a boole ñoom ñëpp ku tal leen benn imaam te keroog ku bay la tànn kon am na lu tax ñu jàng foofu la la wax ne ahmadu bidaa ci haari yi bidaa bii day lu baax la mais da ko waxee noonu rek ndax organisé bi kese waaye da bidaa parce que yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam Buxaari Muslim jub na ñetti yoon yoo xam ne benn bi ci nekk dafa def xiyaar jiite saxaaba yi topp ci ginnaaw jàkka ji fees dem ba ci ëllëg yeneen ci bi génn sallallahu alayhi wa sallam ndax xam ni ñii duñ ko toppee mën nañ koo farataaka duñ ko man ba ñenn ci saxaaba yi dafa ay xiyaar naan ko tànn ci bunti bi ndax daga ne yeneen ci bi dafa ne la war a demee noonu yéen tamit bi gis naa seen jëf ji dégg naa seen xeer yi maa génn ndax maa ngi doon bañ léegi comme jamono yoonal lañ ñett ñu daal di yoonal farataal qiyaam lañ ko suba nga daan métti lool sallallahu alayka ya rasul lépp lu oyof si ñun nag daf ñu doon invité pour nañ ko am. bokk na suñ ci gën a bëgg tamit Abdullah ibn Omar ah ki nga xamante ni moom mooy Zayd ibn Thabit Zayd moom xam ngeen ko moom defe naa xamul ngeen ko ci alquran yaakaar naa ne kër ñu ci alquran waroon na ko mën a am vraiment tamit ci tafsir ba ko daal al Musa al Ash'ari moom gis ngeen ko ci alquran mu waxuma la sax man alquran bi laa bu ko doon jàng moom daanaka xam tuuti kon dama koy dem dem ci yàlla Daawud ci jàng Tawraat Abu Musa al Ash'ari yéeg axamit si la dañuy doon jàng alquran ñeen ñi ci soxna yéen sax la ñu doon romb dégg ko sax dañuy taxaw dégg ndax baat bi ñu mu meloon ci alquran bi donc foofu maa ngi leeralaat beneen biir mooy ñun pour ñun ku neex baat mooy koo xam ne mooy liital bi liital bi di di di lii nekk wàccee ko yéegi dëgg la ci la waaye yéen ci yàlla bi dañ ko la kan ñu gën a neex baat ci alquran muy ci gën a neex baat mooy koo xam ne buy jàng yaa ngi yëg ak ragal yàlla ci am jàng xalaat wóorante ci dañoo dama diis ba xuur ni ko lool waaye wallaahi buy jàng fi muy yegg ci sax xol dafay mel dafay ñaxaal téye sa siri ci xol yi léegi nit mën naa ñii tam te du àgg foofu ci yow kon ci gën a neex baat mooy koo xam ne buy jàng yaa ngi yëg ak ragal yàlla loolu day am loolu dafa xam ngeen ko dafa ñoo xam ne buy jàng wallaahi alquran ji ni ñu koy ni ni ñu waxee da ngay xam ne ñii am na lu lay yëg duñ ko wax kon kooku mooy ci gën a neex baat maa bokk na ci Abdullah ibn Zubayr ci ñi nga xamante ni ñoom gënoon nañoo siiw ñii moom ñii mel ni ñii moom ñoo gënoon a siiw donc am na ci seen biir ñu gën a siiw am na ñeneen ñoo xamante ni doxal nañu leen lépp ci tafsir ci ñoom Abu Hurayra tala Aïcha tala Abdullah ibn Umar tala Jaabir tala ak Waal ibn Husayn tala wala Amr ibn al-As tala ak ki nga xamante ni moom mooy ñeneen ñu bari ñoo xamante ni doxal nañ jëlee ci ñoom waaye li mu doxal ci ñoom jëlee ci ñoom tafsir taxut koo bari lool kon ñii bi yonent bi jàngale alayhi salaatu wa salaam kon boo demee ci xadis am da ngay fekk ne xamoon nañ téere yu mag yu mel ne Abu Hurayra ku mel ne Aïcha ku mel ne Amr ibn al-As ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni dañ doon waxtu sunna yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ko wasaare kon ñooñu ci saxaaba yi daanaka ñun ñoo gën a fee tafsir su ko defee doon jàngale xam ngeen di ngeen ci ñu baaxoo ñii ña nga Madina comme Jaabir ñii ña nga Makka comme Abdullah ibn Umar ñii ña nga feneen tasaaroo ñu nekk Sham ñu nekk Basra ñu nekk Kuufa kenn ku ci nekk di jàngale dafa loolu moom jëlul bantuwaat bi bari ndax leeraloon naa ko ci alquran jëm wuute gi amoon ak salaf yi ndax ñi nga xam ne dañoo masax yi wuute kooku benn la am na boo wàttu see tuuti ci taalibi saxaaba yi da ngay fekk am na ñoo xam ne ñoom dañ doon wattu tafsir di ko tafsir waaye nag ba léegi bind téere amul bàyyi xel loolu ba léegi ah kon li saxaaba yi doon dund dañ doon teg ci alquran donc nag comme ni ñu koy tekkee mooy bind ko ci téere rek waaye laa weeru koor moom wala xaaral ma toog tafsir saa bi ba mu jeex comme ni ñu koy defee déedéet waaye dañ doon jàngale seen i ndam comme méthode yi nga xamante ni moom lañ doon jàngale xëy na yooyu ci yéen di koy ci mën a leer. bu dikkee ci daal la xam ne mu Mujaahid Mujaahid moom moom dal Abdullah ibn Abbas lépp la woon nee na tàmbali naa Baqara ba naa deux fois amul benn aaya yi taxawloo naa ci Abdullah ibn Abbas laaj ko te li muy jekki xam ngeen ko demee ci tàmbali suñu Al Ahzab suñu borom ma ngay wax ni. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم ها يجب أن يقرأ الجميع وما يعلم تأويله إلا الله إن كل القرآن يلوم يوجد لم يتبيه كل يعلى والراسخون في العلم أكمل هم من يقول يتخصص أم يزيد آية تقول وما يعلم تأويله إلا الله إن كل يلوم يوجد لم يتبيه كل يعلى amma war naa ko gën a gën a borom xam-xam yi tuuti xam-xam yi yàlla na xam ne ñoom dañ gën a ñaaw xam nga ñaari tekki la loolu waaye Abdoulaye ibn Abbas moom dañuy wax ne sax kay kenn xamul lu muy tekki dëgg dëgg dëgg ku dul yàlla waaye war naa ko xoolal fii daal ni yàlla may na ñu xoolal ci xam-xam ñoo xam ne dinañ xam lu muy tekki parce que yàlla mu xam-xam kenn du xam lu ci ëmb lépp bu paree day joxe moom ñu xam ne daal di xëy na fii daal man ca laa bokk ci moom yaakaar naa loolu moom xam naa ni ci ci lépp nag bu dee ñun moom di ko faral di bañ a wax mooy kër di mbokk ma wax naan fi ne kan ci ñun moo ñu ne wax kaay leen mel ni ñun comme ni sax xam nga saxaaba yi bu ñu daal dañ leen bu ngeen bëgg baat ñëw leen mel ni ñun loolu saxaaba yi wax ndax ñun bu ñu mën a boo xam ne dëgg yàlla wóor leen seen ci moom waaye ñun yaakaar naa fukki xale ak juróom ñaari kenn nekkul ci naan kaay leen mel ni ñun ñun ñu mën a wax kenn loolu yow da ngaa war am noonu rek mënoo ko ñu ngay wax kenn ka yow ku mel ni yow xanaa day am ko kon gis nga buntu boobu rek la yàlla mooy ñoom yeggal na ci dem waxtaan bu mel noonu kon mujaahid moomu ci tafsir di ngeen dégg lu bare bare ay wax yoo xamante ni ay tekki ne alquran la ñu nekk ko dina ko ci jaay mu jëlee ci Abdullah ibn Abbas وكذلك عطاء بن ابي رباح عطاء بن ابي رباح borom xam-xam bu mag la woon bu kéemtaane woon sax Ataa ibn Abi Rabah borom xam-xam bu mag la woon ci jamonoy aj borom xam dañoo xam ne doo ci wàllu fekk borom xam-xam bu nekk am na loolu gën a jëf waaye masalam aj moom Ataa ibn Abi Rabah moo ko gënoon jëf ci sabar bi ci taal kon Ataa ibn Abi Rabah bokk na ci ñi nga xam ne dafa tafsir alquran ci wét di ko tekki mu ne ndawloo Abdullah ibn Abbas moom Ikrima tamit kadalika Ikrima Ikrima wala Ibn Abbas boo ko defee Ikrima ibn Abi Jahl ndax kooku saxaaba la Ikrima yëpp daal di awli la bokk day tekki wu leen sa sallallahu alayhi wa sallam waaye moom bokk na ci ñoom tekki alxam yi ñëpp ay taalibi Abdullah ibn Abbas lañ woon. Taaruk ibn Kaysan imam bu mag la woon moom it ah nga xamante ni xaw naa fekkente sax imam Ahmad ibn Hanbal jamonante nañ Saïd ibn Jubayr kadalik ndax di ngeen koy dégg lu bari moom la waa Jarayan Haddad ibn Yusuf moom la mujjee rey mu ñaanal ko yàlla yàlla bu mu rayal ci keneen ci ginnaawam boo ko daal imam Xasan al-Basri Xasan al-Basri moom da ci amoon ak cër sax nag nga xam ne Xasan al-Basri biir kër yéen bi juddoo sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salama ab jaamam bu jigéen moo juróon Xasan al-Basri boo gisee ñu ne ñu def mbala di wax Xasan al-Basri soxna yonent bi am na ñu ko naan fal xamul naan fal Xasan al-Basri dafa nekkoon jaamam yaayam dafa nekkoon jaamam Ummu Salama léegi nag yéen lay jaar bi xale bi di jooy mu saxal ko leen loolu rek yéen a màggal lool lan lan moo see génn ci soo moo tax ñenn ci borom xam-xam yu ne moom de xanaa boo kon ween ni ñu ko doon joxeel ci gémmiñ jógu xanaa kon moo ko def mu mel lim nag xasanul basar yi booy dégg ay waxam da ngay yaakaar ni yàqut ak marjaan la ñuy ràbb di ko def tàq ay wax la wax yoo xam ne wallaahi boo ko boo ko dégg daf lay delloowaat ci yàlla dëgg dégg delloo dañ gis dañ na suul ak ñéew dikk bay suul ñëw bi teg ko ci pegg koosu bàmmeel bu kii ko xool ba mu yàgg mu ñu ngir moo xam ni fii la nar a mucc man xasan de gedd naa la la ko gis ñu suul ko ba noppi mu ñu ngir moo xam ni fii la nar a tàmbalee man de tiit naa la dana am kon solo wax ci mu ñu ñu ñu saxoog ni mu bëree njëriñ nag ak ñun ñëpp fii la nar a mucc ci teg la fii pour war na ne ballam ci pax mi suul fii la nar a mucc mbirum àllaaxira la muy garaaw garaaw ba muy tàmbalee ne ñu wax dëgg suuf suñu la te xool ñu ni mu garaawee ba ñu te ñu ñëw te njëkk xam nga dara topp moo gën a garaaw wa kadalika dafa amoon xanaa fay waxam yàlla daf koy doon tuuti ba nga xam ne ay waxam moom buy wax ay kéemtaanu suñu borom la woon kéemtaanu suñu borom la woon subhaanahu wa taala ci jàngale ak mën a leeral ak faram fàcce wa kadalika Masruuq ibn al-Ajda ak Qataada ak Ataa ñii ñëpp ay imaam la ñu woon ñoo xam ne kenn ku ci nekk. sii woon ko ci li nga xamante ni moom mooy tafsir kenn ku ci ne sax la xaal liggéey bi ci liggéey yu rëy rëy rëy kon noonu la toppee da ngay ñëw ci suñu jamono am na nag jamono bi nga xamante ni nag téere tafsir yi tàmbale naa am téere tafsir bi ñu njëkk xam mu mat sëkk alal itlaq mooy tafsir ibn Jarir Muhammad ibn Jarir at-Tabari Muhammad ibn Jarir at-Tabari kooku imaam la woon joo xamante ni kim taru suñu borom la woon ci xam-xam daal da ngay doon préparé ko ci tafsir ñu ne waaw mu ne ma yore la mu tëj te ñu génn tafsir bi mu jeex kooku kooku am na lu mu dencoon yaakaar da ngay soxla ku leen dindal ci taarix bi waaw ñu taarixul mu daal di bind taarix boo xamante ni bokk na ci taarix yi gën a mag Ibn Jarir at-Tabari tafsir boobu mooy tafsir bi ñu njëkk a xam boo xam ne wasaaroo na ci addina bi lu ko jiitu ci li nga xamante ni ci lañ sën na ba yéen kenn gisu leen waaye bi nga xam ne ci gën naa wasa wasaaroo ci am suñu tuwa jamaa bokk na ci suñu sukkandikaay yu gën a mag mooy tafsir Ibn Jarir at-Tabari Cheikh al-Islam Ibn Taymiyya bi ñu ko laajee tafsir Ibn Jarir dani tafsir bi ñu xam bi gën a jiitu te gën a baax te gën a tege ci manhaj salaf ci tafsir mooy tafsir Ibn Jarir at-Tabari tafsir melul ni moom waaye bu ñu fàtte ni boobu Ibn Kathir jënd du ma Ibn Kathir ndongal Ibn Taymiyya kon Ibn Jarir at-Tabari bokk na ci tafsir yi nga xamante ni incha allah danañ koy tudd lu bari ngeen di ko dégg mooy tafsir bu mag boobu. jaamu bayaat nga xam tafsir lu mag a mag a mag la boo xam ne Ibn Jarir moo ko def tafsir ci alquran bokk na ci ay mujazaatam yi nga xamante ni maanaam yu ràññeeku la def mooy dafay tafsir bi tafsir dafay jekkee alquran ci yeneen ci ay aaya waaye daf koy jekkee ni ko yeneen ci yoo xam ne jàngale saxaaba yi soloo ko waaye néew na loo koy fekk ay mbir yu tëgoo mbir yu tëgoo waxi bàyyi ko xel la tafsir boobu néew na loo koy fekk mbir yu tëgoo ay xuraafaat ay israiliyaat ak ay laxasakant ak yooyu nga xamante ni daanaka moo fees gën ci téere tafsir yi fees gën ci téere yëpp sax laa wax lu dul téere yàlla bi Buxaari Muslim kon Ibn Jarir Tabari tafsiram moom wax dëgg yàlla ci tafsir yi gën a mucc ayib la bokk yi nga xam ni guddal ga ak yaatal ga ci koo xamante ni ab ndongo la mel ni man kay la ñuy wax waaye bu ci loolu wax dëgg yàlla ak marja bu mag la bal sax dañu ne ak bari na su boobu jaay lay am tafsir ñoo tafsir Ibn Kathir Ibn Kathir moom defe naa moom la ñëpp gën a miin Ibn Kathir ndaw nga Ibn Taymiya la moo tax may na ko sens parce que xam ngeen Ibn Taymiya ci naq bi ci xam-xamu xadis ci alquran ci ci mbooleem fànni xam-xam yi moom dama lay wax ne daal maanaam xam-xam bu mu tàmbalee di jàng da ngay jàpp ne bii dañuy jàng te loolu dañ na ay jeexintal ci moom wa kadalika alxaafis almisri nga xamante ni mooy sëriñ bi gën a mag ci sëriñ alxaafis ibni kasir yi moom it kadalika noonu la meloon yii melakaat may na ibni kasir doole ba tax bi ñuy tafsir jekk ko na ko toog tey jëloon ji ñuy wax tafsir bi gën a yem gën a simple gën a yem ak ñun wax dëgg yàlla ibni kasir lay doon ba pare te it nag doo tànn tafsir bu ko fay kaw xanaa kay moom ibni jarir la ñuy werante tam la ñuy werante ci buxaari muslim bu fay kaw wa ala kulli ñaar yii moom képp koo say jógee nga xam ne ñaar yi moom ñaari jalwaay la yoo xamante ni ahlu sunnati wal jamaa amuñ tafsir yu mel ni moom ci lu yàgg ya bokk na ci tafsir yi tafsir imam suyuti imam suyuti tafsir na tafsir bi ñu tuddee abdurul mansour abdurul mansour téere la bu am solo boo xam ni kat moom it daanaka moo aw a jege téere yi moo tax ma toppal ko ci jont téere yi toftalante yi ma ko maa ko toftalee téere yi ndax ndax téere la boo xam ne boo ko delloo da ngay gis wax dëgg yàlla jege na lool ci salafu saalax nañ doon tafsir ci tafsir alquran ci biñ wax ci muy sos jóge ci son jóge ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na beneen tafsir ci biir tafsir imam Razi yi léeg-léeg nga dégg tafsir tamit ci rajo yi nga xam ne koy dégg léegi ne imam Razi yi nekk na ko ci tafsiram dëgg la imam Razi imam bi mag la waaye ci buntu pas-pas kat ci buntu pas-pas kat pas asaar yi la yore moo tax tafsir la boo xam ni wax dëgg yàlla bu dee jàngal dañuy yegg ci buntu pas-pas moom noonu la mu ne loolu moytali ko moo gën ci moom ndax ci buntu pas-pas kat ay ndaxal yu ma nga da xam ngeen pas-pas moo xasee dara pas asaar yi ak yeneen pas-pas yi bokk na ci problème yi ñu am mooy def ñu ayaat istifaat ak su ma jaxal yu mel noonu loolu bokkul ci yi gën a ràññee ko yu mel noonu su ma la ne yadullaahi fawqa aydiihim loxol yàlla ma nga seen kaw loxo bi dara qudratullah kàttan ak yàlla fekk bi li nga ndaw li nga am benn la ndax bu ne da ngay mën a wax loxo parce que loxo bi li sama loxo bii boo nee kàttan kàttan loolu sama kàttan bi ndax kàttan kàttan loxo loxo la kon la nga doon daw ak li nga tàbbi benn la kon ayaatu sifaat comme ni ko imam Malik dañ waxee almazbuuha kamaa jaa nii lañ ko waxee rombalee ko noonu loxo bi yàlla nga ne loxo bi yàlla sawaral dañ suñu borom bi ca sot bi ca sot du sot yàgg mu yëkkati nga góob nit ki rëcc mu ne la xop xop jàppal loolu loolu lañ wax tant que nag lu mel nga ko am dugal daara ndax fii moo am lu ñuy tuddee aw tëstal fii am lu ñuy tuddee ab dajo di téere yowuñ si dañ yëpp ci tant que daal tant que ndax daal mu nit am lu ñuy tuddee ndëggu ak dajo ak yi daara déedéet yooyu moom bu jënd ko ñu ngi ko tekkee tekkee ko loxol yàlla loxol yàlla mu jeex ah loolu xaw ma borom bi aaya bu ñëwee ci alquran di melal borom bi subhanahu wa taala ci moo xam ci kàttanam moo xam ca ca ca melokaanam lu mën a doon waxee ko nañ ko waxee borom bi jàll. xam nga daal la man nag mën ca saako loo xam ne man ñooñu loolu lañ doon loolu nga ñëw ci jéem a am ay man man comme ni nga xam ne ngeen fi ci ay bilaar nii donc donc buñ accès accès incha allah danaa ko gën a faram-fàcce et kenn ci nekk itam ay secret ak ay nit yoo xam kenn kenn yoo xam ne bii Aboubacar Omar lim xamuñu ko dafa bëgguma ko wax bëgguma koo xam ndax amul njëriñ law kaana xayran la sabaquuna ilayhi su leen yiwoo ci nekk ñoom dinañu ci jiitu kon mi ngi loolu beneen bi ci des moom mooy tafsir imam Zamaxshari imam Zamaxshari tamit kadaalika ci wàllu luga la wax dëgg yàlla ñi nga xam ne dañuy xóotal ci luga adab aawul ak bayaan ak mënta ah imam la ci kéemtaan suñu borom la ci waaye ci wàllu pas-pas ba léegi am na ay yëf yu faat yu ca des parce que tafsir moom ci wax dëgg yàlla bu baax la waaye am na yëf yu faat yu des imam ibnu jawzi tamit kadalik ibnu jawzi abul faraj ibnu jawzi nga xam ni kenn ci borom xam-xam ne ne ibnu jawzi bu jël si waatoon ci kaw suuf pour kurité ñu war a taalif li mu taalifoo lépp aw doon taalif dem rek boo gisee ay njuumteeg yeneen ci seet kaatak yu bari jot daan ci ay téere mooy moom jot gi nit ñi amoon bind téere ba nag toog di ko corrigé di ko defar moom amuloon jot boobu moom doon taalif bi dem rek xam naa bu ko jël dana gën a baax donc tamit imaam ju mag moom moo tax ñu fekk saxwa xam ne ci téere yi gën a am solo ci téere yi la bokk. Ibnu Jawzi bi soo ci borom xam ne bu dund si laa toll dundaat lu toll li mu dund pour corriger li mu bind rek dina koy sëkk kon moo ne woon ne li mu bind bari na trop moom it yàlla dafa defaloon lu mel ni mu defaloon Xasan Basri moom nee na moom yàlla defal na ko tawfiq ay junni junni nit yu doon def bàkkaar tuubee nañ ci sababu xalaqaat yi mu doon def ci jàng ndax am naa ci ay nasaara ak ay yëngu moom ay téeméeri téeméeri nit dugg nañ ci lislaam ci sababu mën a leeral ak mën a jàngale moom it tafsir la ak tafsir boo xam ne ni amaan na xëy na tafsir bu am solo la donte ba léegi ci ay yëteetam na nga ci am na benn tafsir boo xam ne moom defe naa yaakaar na ne bu dégg balaa ma wax ibni na li moom jële si muy tafsir jalaalay defe naa moom moom yaakaar naa wax ma mag yaay gone sax dégg na tafsir jalaalay léegi jalaal yi boo déggee ñu jalaal moom ñaari jalaal ñoo ko tafsir ah jalaal bin al sayuti ak jalaal bin al mahalli jalaal bin al sayuti defe naa xam nañ ko moom mooy borom alfiyatu suyuti imam ju mag la joo xam ne ci xam-xam xadiis tamit kéemaan la ca jalaal bin al sayuti dafa tàmbali téere bi di ko tafsir di ko tafsir ba egg ci suuratul kër di faat bi tam jalaal bin al mahalli jël ko commencé kër ba naaf moo tax ñu ne ko jalaal ñoom ñaari jalaal ñoo ko tafsir Jalaaluddin as-Suyuuti ak Jalaaluddin al-Mahalli ñoom ñaar ñoo ko taal moo tax ñu naan tafsiru Jalaalayni tafsir la bu baax nag bu am solo waaye nag ay yëf yu baax yu bëree nga tënk yoo xam ne yu mat a seggaat la ndax xam nga ni ci taxiriya bi mawduaat yi da caa bëri te toog boobu defe naa moom laa nga jéem naa ko leeral kon téere boobu téere la bu am solo boo gisee suñu mag ñi fii moom la ëpp lu ñuy tafsiree xanaa ñenn ñu jàdd ci Ibn Kasiir waaye yëf yi paatee te nekk daa bëri lool ay xisaxaki yoo xam ne daanaka ay xubax balaa ay sagari dënn la yëpp ngeen ñoo ngi dañuy dañuy profité parce que ñi nga xam ne ñoom dañuy xeex islam nekk ci biti ak ñi nga xam ne dañuy xeex islam ñëw ba ci biir sërlu bu kenn ku ci nekk day fexe dugal ci ay mbir lu mel ne xisa bi ci yàlla daawul ci ah nga xamante ne dañuy wax ne daal gisoon benn jigéen Suleymaan dafa gisoon benn jigéen bëgg ko daaw daaw dafa gisoon benn jigéen bëgg ko te fekk jëkkëram ci ay daayu dañ la bokk mu yabal ko sa xeex ba pour bu demee ba jiite pour mu beex ko mu takk dana kon kon kon loolu wax dëgg yàlla ñu ko amul benn malaat ci xam-xam sax bu ñu la ko waxee vraiment def ndax yow yow nga koy mbir mii rek am na yoo xamante ni rus bi ko jom de te boobu yéen doo sa tiye xam nga sax doo yow sax waa xoolal ab yonent bi ndax est-ce que loolu jekk na ci moom kadaalika surtout nag ni xisatul garaaj yëpp kadaalika xisatu saala ba nga xamante ni dañ la boole ci ci nekkat yi sa fekk ko pour war la ne dama téere yi mais dañoo nekk dañuy baax baax am na ay yëf yu tax tuuti waaye nag daanaka xaw ci tukkal nga ne du dara bëri na te it nag tamit néew mu ngi indi ab tës sax te fekk wér lu dul suñu gis nga dana leeral ñu ne bii wér kon tafsir al-Jalaalayni moom it ñu ngi noonu waaye am na yëf yu tax ñu nekk am na beneen tafsir boo xam ne ak yoonu Alusi yoonu Alusi moom wax dëgg yàlla tafsir ci tafsir yi tane la bokk moom it. moom moom yàlla da ko defaloon kéemaan ci mën a mokkal nee na man lu ma nar a réerlee sama xel laa koy dégg loolu la wax lépp lu ko daan jaaxal lan koy réer rek xelam mi la koy dégg ndax bu ko déggee mu joxaat bu ko laajee bi muy commencé di jàngale fukki at ak ñett la moom àll aussi kooku ñun bu gàtt ñett ci nga war a commencé def dara defe naa da ngay fukki at ñett ñu doog la yóbbu daara moom fukki at ak ñett fekk na commencé naa jàngale. imam Sawuti ñu ma la waxoon tànk nee na juróom-ñetti at fekk na mokkal na xuraan ba commencé di mokkal téere mu ko xam juróom-ñetti at vraiment war nañ mën a mel ni ñu mel daal ci daan dundal suñu borom bu jàllee jamono bi jàllee seen dund bi ak jagleel bi leen suñu borom gadi imam nasa bi ak taala bi tamit kadaali ci téere yi nga xam ne yi tane la bokk ba ba benn bi ci nekk am na yëfi xaar ci nekk am na tafsiru sëriñ ko soo gisee na mujjee ko mooy dama seetlu ñun mbokk yi nga xam ne alhamdulilah ñu ngi góorgóorlu ci diine boo tuddee def ni seen ut bi rek nga gis sama taal commencé di di di gën ñaaral waaye léegi man balaa ma ciy leeral lenn li may laaj mooy léegi ñi tax ñu tudd yeneen yii yii dañoo gën ñaaral ñu tudd bii nga gën ñaaral te wane benn la benn la ñu tafsir tafsir la tafsir yi ñu am ay yëf yëfaan tafsir yi ma la wax moo am ay yëf yëfaan moom tafsir seen ut bi ñu bokk leen moom it am na yëf yëfaan te it nag kaay ma xamal ne ñaar téere bi ay yëf yëfaan sax bëri na amut mënul téere yàlla bi Buxaari sax nag dañ Buxaari sax laa am nañu sa wax yoo xam ngeen imam Daaraqutni bokk na ci ñu jàngal ko wala Buxaari yow Daaraqutni sax nee na wër na Buxaari ba sonn waaye ñeenti xadis la dégg ci wér loolu dafa alxames bu xajee ci suñu bàyyi ne ko déedéet xadis yooyu nga wax wér na waaye dama ne bu fekkoon la wax sax wér na sax Buxaari jàmbaar ndax la gën a ci xadis bu ñëwee ñëwee dafa wér kooku jàmbaar la comme alxames bu fekkee ñooy déedéet sax suñu bàyyi ba ñu loolu sax wér na tafsiru Seydi Qutb benn la ci tafaasir yi dëgg la Seydi Qutb bu ñu laajee Cheikh Nasrul Albani ci moom dafa wax ni du du fóore ci xam-xamu xadis adib la woon jàmbaar la woon jaamukatu yàlla la woon imam Bakr Abu Zayd dañ koo laaj ci tafsir Seydi Qutb wax ko ci am solo mu ni ngëm yàlla ji mu ji mu gis ak dëgg ak sellal ji mu gis ci tafsir Seydi Qutb ci benn niw dëgg bi ñu feeñ ci ni muy bind ndax nit ci ñun soom day feeñ ci mbindam mu ne ñëw na gën ci tafsir fekk ko ba pare mu di ko ni suñuy waxal bi seen jël xam ngeen bokk na ci ci tax Jamal Abdou Mawar mu masal bi rey ko xam ngeen ci tey yàgg mille neuf cent six mille mille neuf cent soixante-six la baax kon yàgg Jamal Abdou Mawar ci jamonoom bokk na ci yi nga xamante ni dañ ko doon sàcc ci moom moom tey ko du ay mbir yoo xam dafa jural njàngale lislaam mu jiw ci yàlla ne sama baaraam bii may taaya ruus naa cee téye xalima si ci seede loo xam ne dafa jural yàlla ba dugg mbokk si gën na yàlla yàlla waaw waaw léegi béykat yi amul léegi biñ ko laajee ba ni laa fekk am nay tafaasir yu bari yoo xam ne am na yéen i fan parce que xëy na xut bi cala waaye nag ngëm yàlla da ca nekk ak dëgg da ca nekk ak bës yu da ca nekk mu ne su fekkee mën nga koo jël ba jëriñoo ko bàyyi ko ci lan jiw bi donc am na benn borom kooku am na ma mat bi fi ma toog toppaate tafsir yi ñu kasi wala fi wala salaam bu xëy na xut ba ba génn yëf yi fan yi nga xamante ni moo ci nekk kon li ma ko wax ko rek mooy mu xam ni maanaam imam Zahabi ci teew aala bi xabar da ngay gis ñu répété benn baat répété na ko ci téere bi lu mat fukki yoon daanaka wala lu ko teg gis nga waxam jooju maa ngi koy dénk sama di ko dénk ndongo yi xam ngeen ne imam Bayhaqi am na lu ñu wax ci moom Ibn Hazm wax nañ ci moom Daaraqutni wax nañ ci moom ah imam yu bari bu àgsee ci imam boo xam ne am na ay yëg-yëgaan yu ñu ko sikkalee danaan yéen gën a baaxle soo ko déggee mën naa muur ba feeyal li ñu dafa bonle mun kon li ñu dafa baaxle te mu ne leen ko li ñu dafa bonle te nga romb jàll ndax soo bëggee sëriñ bi duñ juum di nga bañ wax ci am solo loolu si nga bëggee sëriñ bi duñ juum di nga bañ Ibn Hazm ala sabili misaal imaam la woon joo xam ne kenn du werante ak am xam-xam ak jéeg sa xam téere bi ñu tuddee al muhalla ci wàllu fekk bokk na ci maraja yi gën a mag ci benn yàlla ni suñu sama jamaa donte nag dafa tàngoon tàng jër ba nga xam ni ah léegi nga wax ci ginnaaw sax mu wax ci loolu léegi nga ne yoon tamit yi tamit yi kenn xam ko ba jigul la wax ñeen xamoo ko yow imaam imaam yi xamul tus te fekk imaam ba xam na dara yu mel ne maanaam tàngoor ba ko yóbbee weer yi yore ay dëkk ko ŋàññee ba dóor ko dàq ko ci dëkk ba lakk ay téere mu ne ñu ne nit ñi dañoo sonn ko ci dëkk ku leen fekk ñu lakk sama téere bi xaw ma leen dal ñu ne xanaa dañoo xam ne li ma ci téere yi bopp bee ko fi teg te bopp bi ñu ko moom bi bare mu ne bu ngeen dugal bu ngeen lakk bi parce que téere yi ngeen lakk bopp bee ko fi indi te bopp baa ngi ba léegi bu ngeen koy lakk ma koy bindaat Ibn Hazm moom kese ci biir Andalus mi Espagne mazhabul Maliki ya wasaaroo ko lool moom kenn kese ci ñu fexe ba juróom daal ak zahiri wasaaroo ko xam ngeen am na am na ay may ci biir xam-xam kon ñu ngi leen gën ci jublu ci wax ko mooy ñu xam ni kon ku ne am na ay yëf yëfaat yu des ci yow tafsir xutb bi am na tafsir xutb xutb bu ma wax am na ñaari tafsir ci nit yoo xam gën a junj na am benn junj bu ñoo junj mooy ak warul bayaan fi idaah al quran bil quran kooku moom dana wax ne man ah man tëjee mooy sama bëccëg ak li ma yor li muy tuuti tuuti ci tëj bi ma sama bëccëg tafsir boo xam ne ci wàccee gi mu jaar dana jaar tëjee moom bëri أضواء البيان تسع مجلدين يجبن في إيضاح القرآن بالقرآن هي التي كيف كان أبو خمي يتكلم وهم الاتباع كانوا القرآن وهم تفسير القرآن القرآن لا يمكن مثلا تقصد بك لو بتحرير نوع خمي ومن الآن تقصد على غير التفسير بدل اللغة باب عرض باب مثل اسمان من بعد حديث صلاح أما تفسير الشحنات السعدي xam ne tafsir la boo xamante ni boobu moom lu waay ñàkk ñàkk am tafsir am ko xatta ni daf ko ci am tuuti ci làkk arab ko dana dem tuuti rek sax mën nga ko wut incha allah di ko dimbali ko ndax tafsir la boo xam ne ni mu simple ñaari mu jëlab la am na ñu ko def benn. indiwut ay njëkkin yu guddal xuraafaat yi ak xusax bala yooyu daanaka xaw tuuti ba xaw ci lu dul lu néew ci suuf si saaf ak yeneen néew xaw ci la nga ni amut. beneen bi ci des mooy am masala bu ci yegsee ni mu lay taxawee da ngay daanaka yow da ngay soo demee ci suuratul Maa'ida ci aaya bi wax ci njàpp bi ñu jàngalee aaya bi njàpp ba noppi tafsir ko di cee andi ay fawaid yoo xam ne mat na juróom fukk yoo xam ne boo ko tiimee dana ñëw ci yàlla subhanahu wa taala ba léegi ci suuratu Saaf xisab daawuda Suleymaan di leen bind sànq bi ñu ko taxawee ba noppi di cee andi ay fawaid yoo xam ne ak ay xekamati aywaar yoo xam ne day na lool yu mën a jariñoo kon tafsir la boo xam ne moom ci simple ci oyof ci tuuti ci leer ci néew ay sagay ko ne ci xudaa balaat moom wax dëgg yàlla bëriwul bu mel ni moom ci gàttal kon lii daal mooy xeet tafsir yi nga xam ne di moo gën a bëri ñun nag insha allah ci bind bii ñuy def danañ ca tànn téere yii moom insha allah mooy nekk sukkandiku kaay doon daan dellu ci yecca les ndax gëstu moom comme ni ma ko waxee sànq lépp loo xam ne gis dañ ko juróowu tëg la nga xamante ni mooy leneen jël ko mën naa nekk tafsir ibni jarir at-Tabari tafsir imam ibni kathir tafsir imam as-Sarkari tamit tudd ma ko Fathul Qadir mooy ci tafsir yi gën a am solo la bokk dama ko fàtte daal tudd ma ko ak tafsir Adwaa Bayaan ak bii nga xamante ni moom mooy Cheikh Nasir Saadi juróom benn tafsir yii moom mooy yi nga xamante ni moom ci la ñuy sukkandiku bu baax ci suñu bind bi incha allah yeneen tafasir yi lépp luñ ci gis luñ mën a jëriñoo danañ ko jëriñoo kooku mooy kenn ki ci tëj gi ñaareelu tomb bi moom mooy ci tëj gi mooy bind bi insha allah ñu ngi jéem dars bii ñëw gën a tàmbali bu soobee yàlla comme ni ñu ko waxee woon ñu ngi tàmbali surtout kër gis naa insha allah taala ay bind yu tax ñu tànn ko dama gis ni tàmbalee ca kaw ba ci digg bi ba ci kër daanaka boo doon xool ayatul ahkam yi nga xamante ni mooy wax nag ci wàllu acte ci miraas la ca ca ca jihaad ja ca ca ca yëpp ca la nekk muy ay masala yoo xam dana jàpp ne buñ ci tàmbalee danañ dugg ci ay masala yu xóot yoo xamante ni danañ dem ba danañ gis da lay ëpp wala mu nekk lu yëpp ci yow wa illaa ma gàttandu ñu romb lu ñu war a mooy war mën a jëriñ loolu tax na ma taamu li ko tàmbalee kër danaa loolu moom xam ko wala bàyyi ko bopp bàyyi salaam ko kon defe naa tàmbalee France de bi falax ak naas booy jàng yéeg jëm kaw man de moom laa gën a tàmm tàmbalee baqara jëm suuf ngir ay mbir yii ma jënd muy benn beneen bi ci des mooy boo koy seet na maanaam nit ki am tadrib ci jël yi gën a ayof loolu yéeg jëm yi jëm kaw ñu ne man tàmbalee kër bi jëm naa ko tàmbalee naa jëm kër moo tax ne dañ yéeg dafa nga xamante ni mooy ko gën a diis loolu bokk na ci tax ñu tàmm tàmm yi parce que ak yeneen yeneen yoo xam ne bi ñu amal na kooku moom leeral ko mën naa jël wax ba di leen tàmbali suñu kër suñu tax ci incha allah duñ fàtte ci aaya fekkal ba na ko max laay wax bokk na ci liñ ci jublu mooy dinañ jéem di xas ni tawfiqil baari jalla fi ulaa su ñu koy ñaan lu ko dañu taw ñu dimbali ñu ndax parce que ñun ñëpp ay ndaw lay xam sax dañuy jéem du ngay boole xam-xam dañuy jéem li ñuy wax it bokkuñu suñu benn lu waxu bopp rek waxi borom xam-xam rek la ñuy nit li ñuy rek nit ñi def kon dinañ jéem aaya ju nekk buñ ca yeggee daan ca taxaw am ca jot lool nag ndax moom moom la ñu tafsir yi am ca jot ba maa ngi yaakaar ne bu fekkee tafsir nañ ko ba jiite ko bu dee yow jël nga ko luy xóotal ci xam-xam lu ci seen ko nga xam da ngaa aajoo ñu joxal la nga soxla ko nga dem liggéey ragal naa doo ko soxla leneen loo xamante ni dana gën a faram fàcceel leen loolu te ci làkk bi ñuy làkk lañ koy def incha allah kooku benn la beneen bi ci des moom mooy maanaam tafsir bi ci jëm boppam dafa laaj nit ki xam ak nit ñu yaatu ci wàllu siira tafsir dafa laaj nit ki am tuuti ak malaka ci làkku arab tafsir dafa laaj nit ki am ak malaka ci xam xadiis yonent bi alayhi salaatu wa salaam parce que nit dañuy diggal nekk diine ndax am na ay aay yoo xam boo déggee faaw nga taxaw leeral aay moo tax dana wax mbokk yi ki nga xam ne amul ci xam liggéeykat la wala déggee noonu su mënta ñàkk ba mënta ñàkk muy téye benn xalqa jàng xalqa tafsir lii mooy sabab yàlla defal na tawfiq li ñu tàmbalee di yëngu ci jàngale alquran ak tey fu mu mos a sant daara nekka rek la ñuy def mooy su mënta ñàkk ba mënta ñàkk ya nga xamante ni day tax moom mooy def sa tafsir ak def sa xaalis saxam ndax boo def def sa tafsir boo leen li nga xamante ni ci amul jot pour daal ku dëgëral leen ko jox ko jox yóbbaale ba amu jot ya illaa mat la ya illaa mat nag xale ba moom di ko man kon bu defi ci def xeex si yéen jëf yëpp dana ko fi fekk bu dee sa xaar saxaaba nag moom suñu yàlla daf lay ñëppi dina doon ñu gëm dina doon ñu force dina doon ñu gën a dëgër ci li nga nekk ci nit kon yaakaar naa ne li nga koy gëm yàlla yow di xamukaay diine la kon daal ci gàttal incha allah dars bi di ñëw dinañ tàmbali tafsir bi kon bi ma doon laaj jeexalee ginnaaw bu yooyu leeree mooy xam ngeen ni alquran ci boppam téere dafa si daf bëri ay israil ak i mawduwaat israiliyaat yi mooy israil mooy lan mawduwaat mooy lan israiliyaat mooy xam ngeen ni bari naa ne ay nett li yoo xam ne ñu ngi koy nett yi te fekk ci téere yi yàgg dina juif yàgg yooyu dañ ko jëlee waaye ñëpp yéen a ko jàngale xaaral na kafir ci tàmbali tafsiram boo demee ba ne israiliyaat ñetti façon la bul tànn yëpp ne am na benn boo xam ne ak métti la te israiliyaat la ñu jugee waaye yonent bi alayhi salaatu salaam jàngal na lu ni mel lu ñu jëlee parce que benn la am na boo xamante ni te israiliyaat la jugee waaye gisoo ci lislaam lu koy taxaw gisoo lu la koy weddi kon mooy nit ñi mën saa wax waaye bul dëggal bul weddi am na boo xam ni sunu sun la sunu lislaam bi da koo jàngal ni lii wér su boobaa sànni mu jeex nga noppal te leeral bu am solo boobu kon ci biir ay yaay moom yooyu nga xamante ni juif yeeg ila axiri yi ndax mustashriqoon yeeg gars yi nga xam ne dañuy xeex l'islam kenn ku ci def day fexe ba ay dëxëj dëxëj yoo xam ne nga xam ngeen ci jamono mag wóor biñ commencé tarjama téere arabe bi ko génne te laaj arabe bi ci yeneen laaj téere yeneen yi laaj ndaxas ndaxas yi commencé am ni jaay jaay xam nañu may su ko defee kon fekkat ku la sëkk laaj na ci moo tax Amar ibn Xattaab dafa for benn fooy boo xamante ni tawraat la mu di ko liir yonent bi gis ko alayhi salaatu wa salaam daal di koy toqal daal di koy sànni fële ni ko afi shakkin anta ya ibn al-Khattab ah yow ma daa daa am ci sàkk bi dama nekk man yonent bi ba tax nga koy bàyyi alxuraan da ngay liir ay dawraat dama ne yonent yàlla Muusaa bu dellu si waatoon ci kaw suuf balaa xala ma seet sama ginnaaw lay toog sallallahu alayhi wa sallam kon gis nga kon amul lay may soxla keneen amul ko am na loo koy aati mooy ay xadiis ak ay nekk li yoo xam ne waxuma la sax wér xam nga wér ak dafa kon boo xam ne xadiis bu am dëkk xadiis bu daif xadiis mawdu xadiis baatil mawdu mooy loo xam ne sax day wér yéen sax dafa yóbbu day yóbbu sax xam nga fa jege ko te xadiis yu daif yeeg mawduaat yeeg israa yi nga bari ci alquran lool mën naa ci joxe ay misaal ci xisab Haaruuta ak Maaruuta mën naa ci joxe misaal ci xisab nuur wal qalam nuur mooy lan gis nga xisab Suleymaan bi war a wax sànq kadaalika xisab suuf nag ni su dee bii day yu bëri yoo xamante ni ay mbir yu si bokk def ci àdduna kon yooyu incha allah amul sa lenn lu ñuy egg yu bi gis ñun mawla subhanahu wa danañ ko leeral aaya boo xam dafa nasax bu ci yeggee danañ ko leeral aaya boo xam dafa xalit danañ ko leeral acte boo xamante ni acte bee bi def waaye yax bi dafay jugee comme li nekk ci tàmbali suuratul Nuur mag mu am jëkkër wala mag mu am jabar bu njaaloo dañ koo war a caw ba mu dee loolu acte bee bi des waaye yàq bi ci alxuraan jóge na fi lu mel noonu buñ see géej gi danañ ko leeral ah dégg nga aaya boo xamante ni dañ koo dafa folli dafa folli wala di folli mooy naan xam nga suñu des na ko leeral man daal li ma ko doon foofu mooy lu mu jàpp ni lii kat bu ñuy aajo wala incha allah danañ ko leeral kon Maodo aad yeeg israéliens yi gis nañ dafa seen tafsir yi bon alhamdulilah yàlla tàggat na ay borom yu xam-xam yoo xam ni ñu fees benn lañ ci géej gi lool te seen xam-xam mel ci lu mel ne leer nañ ci. incha allah dañu sukkandiku seen leeral leeral ci gàttal daal loolu moo nekkoon bind bi ñu ngi ñaan suñu borom bi defal ñu ko fii ci biir àddina ci àllaaxira ñu ngi ñaan yàlla ñu dimbal ñu ci yàlla ndax xam ngeen jëf seen borom soo xam ne di ko nangu daf koy sànni waaye ñu ngi ñaan yàlla ñu boole ci ñi nga xam ne li ñuy dégg dafay nekk lu ñuy war a jëfee mu nekk fas jaxal lana la xajatan alayna wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi